ma jàpp ni euh, alliance pour la république la ñu fi ñu waroon fi ñu jaaroon foofu la ñu nekk di jaaraat. Mm. te loolu moo am solo loolu la président de notre parti muy monsieur président de la république di xaar si ñun. Mm-hmm. kenn ku si nekk ba parrainage parrainage jotee ba ñu ne euh, naam am nañu ay député yu doy mais dañu bëgg chaque responsable nga dem sa base nga animé nga parrainé. Mm-hmm. ñun kenn ku si nekk en tout cas woo nga say nit yi nga lëkkalool. yi ngay ànd ak di politique kenn ku nekk euh, def ñi dix euh, fiche ñi cinq fiche ñi ñaari fiche mhm. ñi benn fiche mhm. ndax li si am solo rek moom mooy ñu dem seetuwaat militants yi vraiment feddali si aussi suñu coloré ak ñoom mhm. donc loolu la c'est vrai boucler nañu euh, fiche parrainage yi ñu ngi am yaakaar ne ñi war a bokk si élection yi dinañu bokk ndax nag aussi Euh, quoi qu'on puisse dire xam nañ ni réew mi. am na démocratie ndax Sénégal rek moom moo am ñu dem tey élection bokk na ci dëkk yi nga xam ni bu ñu demee élection dimanche lundi ñëpp dañuy day xëy dem. liggéey kooku aussi ñu koy souhaité waat. Mhm. di ko ñaan te am nañ ci yaakaar. gis nañ ñu aussi ñu mu commencé durul la ñun am nañ ci yaakaar. Mhm. ndax tey euh, bu fekkee ne candidat yëpp boole nañ leen yemale wax neen ne euh, bésu sàngam ba le 26 la ñuy arrêté. Mhm. parrainage yi. ñoom ñëpp ñu def ko en tout cas ñi jëloon fiche bari nañu deux cent cinquante deux cent soixante. deux cent soixante six. voilà c'est ça tey ñu gis ni euh, un tiers bi ñëw ñu déposé. Mhm. amul amul amul amul amul solo li muy wone rek moom mooy ah politique euh, neex na ñu bari. parce que mhm. nag aussi euh, damay faral di wax ni politique politicien pour dindi pour pour pour écarter leen jafewul na nit ñi xam ne politique d'abord li si li koy li koy suuxat. moom mooy politique de développement. Mhm. ndax nit mënoo politique naan da nañ nit ñi cotiser mais nit war na bànqaas bi mu yor si politique mu liggéey si ay ay mbir yoo xam ne dafay jural voilà si accès social et cetera. di nga mën a amal di nga mën a am ay ressources yi ngay liggéeyee te doo sonn di kenn cotiser. te di nga mhm. di nga mën a amal population bi njëriñ. Mhm. donc yooyu yëpp vraiment ay hypothèse la. moo tax souvent sama sortie yu njëkk yi may faral di wax ni laaj na politiciens yu bëri ñu defal leen formation politique. ndax munoo ne ndew da ngay politique amuloo métier da mënoo ne da ngay politique amuloo liggéey ah, li ngay yàq ci dëkk yu golo da parti <laughs> yéen parti c'est pas structuré waaw ah bëgg a jàngale politique. waaw xam nga loolu tamit nag man de su ma xam nga xam nga loolu. <laughs> jotewul dara ak euh, mbir mi. Mhm. ndax ñun amoon nañu école du parti maître Djibril waar moo koy nuyu de passage euh, moo ko yorewoon. maintenant di ko doxal mais bu ñu fàtte ne aussi euh, ñun dañu am formation politique ndax suñu leader muy président de la république que ñëpp d' accord nañ ni Sénégal wërgal gëpp ah bu fi dàqul politique tamit. Mm. ah que euh, sorewul euh, première deuxième kooku moom leer na nañ ñi maintenant am nañu formation politique ndax boo xoolee fi ñuy jaar gars yi fi ñuy jaar gars yi nga xam ne ku amul formation politique doo fa jaar leen di jaar ah saa bu jotee làbb làbb yi métti ah local yi waxul loolu ak kii de xam nga local yi mm. je prends l'exemple sur commune bu mel ni Grand Yoff jémme mën na ma témoin mm-hmm. ku mel ni Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. élection locale dafa jot ñu def lu tolloog six listes ñu dem ñu dóor ñu six listes yëpp boo ko boolee boo ko boolee ñun kenn ñu gagné mm-hmm. mooy moo tax boo seetloo musuñu perte bi parti APR ñëwee ba tey ñun mosuñu perte si ay élections yu mel noonu. saa bu je prends l'exemple saa bu local jotee mën nañu perte. Mhm. mais saa bu présidentielle jotee dañuy gagner tous les bureaux de vote. ah à Grand Yoff oui à Grand Yoff waaw fa nekk taxawoo mais ma ne amul présidentielle bu romb. te Benno Bokk Yaakaar gañewul tous les centres de vote tout laa wax. kon ne dinañ ko dinañ yi ñuy perte daal mooy ay élection wu. local ñu xàjjali ko wala ay élection député yéen foofu ngeen jëm présidentielle bi nii yéen fi mu nekk nii jubóobu leen de. non à quatre-vingt-dix pour cent moo wax la tey benn affaire bari na ñoo xam ne sax ñu ngi ci kujje gi ñu ngi daas seen fanaanal pour yu wuyu si. doyen dégg nga. ñu ngi daas fanaanal. pour wuyu si xoolal ma question de tout à l'heure c'était grandeur ou faiblesse ceux qui ont désisté. dañ leen di ne dañuy négocier ak ñoom xëcc leen idi xëcc leen mi xëcc leen bennoo xëcc leen comme ça ñu mën a ànd ak ñoom dem élection mais dégg nga lu mu wax nee na waa opposition bi ñenn ñi ñu ngi ñu ngi ci suuf ñu ngi sous-marin daal